ànd fi ak yéen ci jumaa ji tabaarakallaahu ànd ko nag ak suñu xarit alxaaji Jili Ñang eh, mi nga xam ni bu TFM taxawaay bi mu nu ci defal am solo lool ci bis bi nga xam ni lañ doon taxawee eh, eh, liggéey bu màgg boobu ñu ànd ko ak sunu xarit nag Ahmadou Diagne Fozeka ak njabootu Serigne son bi yëpp ci taxawaay nag sang bu tedd bi Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke Serigne Cheikh Say di ci ziyaar njabootam gépp soxna may munatu Mbacke moom Serigne Cheikh Say mi Serigne Cheikhum sëñ Muntaxa yor ak njaboot gi yëpp kon daal xam naa Ibou Cissé Euh, tey jii moom lañu ñu war a àndal waaye Xaadim moom la ñu àndal rek bëgg a dugg ci jumaa ji taataan li fiy bàyyi muy xutba yi bayaan yi bu ñu noppee toogandoog ñoom waxtaan kon ñu dugg ci biir. أشهد أن محمدا رسول الله ذلك عام فتلقوه بالترحيب والإكرام فتحلوا والسلام ووسعوا على عيالكم في معاشرهم وأخرجوا فيه زكاة أموالكم وأعظموا فيه حرمات ربكم واجتنبوا فيه كل شيء حرام واسألوا الله المغفرة فإنه يغفر الذنوب والحساب واتقوا الله حق تقواه تدخلوا الجنة بسلام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 ولا تهتموا بأبشاركم فإن الله هو الرزاق ذو القوة المتين والله لقد ظلمتم أنفسكم في طلب الدنيا وسار أنفسكم ترقاكم إلى السماء الغناء وأقوال الكافرين وتموت عند سماع الحق والكتاب المبين فما أتاكم من مصيبة بما كسبت أيديكم يحل من أيديهم أجرهم وفي الحديث أكثر من

أقلام حاملة والسلام عليكم السلام عليكم asalaamaaleykum wa barakaatu mbokk yi ñu ngi amaat mbegte di wuutu sunu xarit euh, sunu genn wàll di Sidi Maxtaar Alaaji Njaga Sekk ci li nga xam ni mooy yowmal juma seen télévision Futurs Médias di leen ko indil ajuma ju nekk tey jii nag ñu ñëw fii nga xam ni ñi mooy Touba kon nuyoo bi ak bi ñu ngi koy tàmbalee ci fadilatu Cheikh Mouhamadul muntaxa nga xam ni penc mi miin na ko lool borom penc mi moom la daan wax ni mooy taawam mu di Cheikh Abou Madiana Chouaïbou nuyu ko ziare ko ñaanal ko. di ko ñaanal itam rakkam ji nga xam ni mooy kilifa penc mii ñu nekk mu di sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke ñu gën koo xam ci turu sëriñ Cheikh Sey moom Cheikh Abou Madiane Chouaïb ak njaboot gi yëpp njabootu Cheikhul Khadim gi yëpp ak ki nga xam ne mooy seen kilifa di Cheikh Sidil Muxtaar moom sëñ Touba Cheikh Abdoul Ahad ak mboolem njabootu Cheikhul Khadim gi ba ci Cheikh Mohamad Bachir moom Cheikh Abdoul Khadir mi nga xam ne mooy kàddu gi mbégte nag saa su nekk ñëw fii ci Touba di fi indi lu mel ni waaye rawaate nag ci bërëb bii nga xam ni mooy Daaru Raxmaan Daaru Raxmaan sës ci Daaru Xuddoos sëriñ bi sancoon ko ganam yi mu daan am li ci ëpp rawaate na ganu naar yi ñu leen fi daan dalal ba mu gën a siiw ci turu Daaru Naar muy bërëb yi nga xam ni fi lañ nekk euh, imaam bi nag euh, cheikh euh, Mame Balla Bousso ku nekk xamoon ko digganteem ak cheikh Abou Madiane Chouaïbou bi mu jiitee julli ji ba noppi dégg ngeen itam xutba bi léegi nag ñu taxaw ak sëñ Moussa Fall Euh, ak sëñ Amadou Diagne sunu genn wàll gi nga xam ne léppam madia Abou Madiane Chouaïbou la rawatina sëriñ Fallou moom sëriñ Chouaïbou ngir indil leen tuuti rek ci taarixu euh, jumaa ji ak taarixu bërëb bi nga xam ni mooy Daaru Rahman sëñ Moussa bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatullah sëñ ji ñoo ngi siyaare bu baax tey ñaanal sëriñ Mountakha mu yàgg fi loolu te wér ba li nga xam ne bëgg na ko liggéeyal borom Tuubaa rek ñu ànd moom ak sëriñ si Ahmadou Mbacke mi nga xam ne borom penc mi. ndax penc mi ñu taxaw tey barab borom tuwaay la woon ndax fi ñu taxaw tey barab bi ne fi jumaa ne fi ci biir kër gi la bokkoon euh, këru Daaru Rahmaan gi nga waxoon te amee moo ko xaajale woon ak Daaru Xudoos kon muy barab boo xam ne ki yoo xam ne ci lu mel ne alxuraan alxuraan rek la fi nekkaloon te alxuraan yooyu mu fi nekkaloon ba tey moo sax ci barab bii rek saa yu ne kayu bu suwa ngoon ñu ngi ko jàng bu ñu selu ajun ñu ngi koy jàng ñaanal ci ñaanal sëñ sooy bu ñaanal sëñ Tuubaa ñaan jullit te ñaan suñu borom jot leen ci yool ba di waxal nag jumaa ji moom dañ koo taxawale ba léegi ci ndigal sëñ Ahmadou Mbacke ah, moom tubaarkala nii lañ nii lañ koy doxee rek ñu ajuma jot ñu julli fi fi julli waxtu yëpp te jàpp nañ ne benn waxtu fi ma sa taxaw amut ba ba jumaa ji euh, sosoo ba léegi kon nag euh, ñoo ngi ñaan ci barke boobu euh, daal julli gi ñu fi taamu. Euh, niñ ko fi taamoo yàlla nga ko fa amee ndax sëriñ Abdoulaye mu sëñ sooy moo ko daa jiitoo heure ne xanaa jamono jee tax rek ba léegi ñëwut waaye yëpp ko daa jiite bi mu ko bi mu noppaloo tim ak sa euh, koy jiite ak sëñ Abdou Samad Silla kon ñu ngi ñaan borom euh, ndigal loolu ñu taxaw ci ndigal sëñ bi rek mu a dëgër a taxaw di ñaanal sëñ Muntaxa mi fi nekkal sëñ Touba li mu fi yéene yàlla barke bu nekk am na ko fi wéttali itam waaw penc mi fi la nekkoon sëñ Ibou Mbacke moo ko wéttali mel ne moom yàlla dina boole woon ak sëñ Tuubaa ñu ànd ko fii barab bi nekk wax ne moom la sëñ sooy bu njëkk am ci néeg nee bi mag mu mag mu ñu wax Baye Serigne Kane mi ne woon bëkk daa daajal sëñ sooy bu wax bi ko mu koy moo ko dëral boppam parce que daanaka fi yéen ba tey mooy néegam mu mujj bi mooy néegam mu njëkk mooy mujj ba loolu daal la ñu xam ci kàddu yoo xam ne dañ ko mën a jot euh, euh, bi itam bokk na ci taarixam Cheikh Mouhamadoul Moustapha xalifatul awal Cheikh Mamadou Fadal ñoom ñëpp fii la leen sëriñ bi dalale woon alxuraan lan nga yëg tey. waaw tey moom li ma yëg eh, sëñ ji sama xol dafa sedd guy te fees dell ndaxte fii nga xam ne fii la ñu jullee tey bi ma gisee tey bay mut ba nodd te ma gis ni nii la ko daan defee ci kanamu sëñ soin bu den ko defee nii ci kanamu sëñ abibu ma gis sëñ mam ball bu sooy jiitee te ma xam liggéey bi nga xam ne liggéey na ko fii ci kër sëñ soin bu ci jamonoy kër sëñ soin bu kon bu loolu wéyee ci ndigalu sëñ ahmadou mbàkke xalif généralu kër sëñ soin bu ba tey julli gi demee nii kon duñu man lu dul yëg bu sedd xanaa nag di sant rek ak di santaat bi nga xamee ne ñëw nañu fi fekk fi jumaa ji dox nii di fekk fii daara ji dox nii fekk fii gone yi nekk fii di jàng ñu ngi nii di wàcc kaamil yi sëñ maam Balla Bousso mi nga xam ne moo doon jiite léegi ñu gis ko mu toogati ne di jiite kaamil gi loolu lépp nag ñu defee ko ci bërëb bii nga xam ne fii la sëñ soin bu ne fii la sëñ bu nekk ci ku ne xam kër sëñ sëñ abi bu li mu doonoon ci kër sëñ Tuubaa gi xam ni ñëpp fii la ñu jànge ci ndigaluk sëñ soin bu waa kër sëñ Tuubaa yi ñi ci ëpp ñi ci ëpp ci sët yi bu jaar nañu fii fii man naa wax ni mooy université bi kon bu fekkente ne ñëw nañ fi daje feek yow ñu jullee ko nii ci njiit lay sëñ maam Balla ñu màndulul sant xanaa nag di siyaar sëñ Ahmadou Mbacke xalif bi di siyaar sëñ falu Mbacke soin bi mi nga xam ni mooy sunu sëriñ di siyaar sëñ Abdou Lahat mi nga xam ne moo ko daan jiite nii ak mbooleem njabootuk sëñ soin bu yëpp fàttewuma sëñ Abdou Samad sëñ am sa fàttewuma kenn ba ci sëñ jiili mii nga xam ni moo ci gën a féete ndaw kon li ñeen di ñaanal mooy seen barke bàyyi seen barke maam yàlla defal leen fanu gudd wér gu yaram wér gu yaram ak yit ñu euh, daje ngërëmuk sëñ Touba loolu daal mooy li ñuy ñaan di ko ñaanal sëriñ si di ko ñaanal soxna yi nga xam ne it moom la sëñ bi njaboote penc mi daal sëñ ji li foo ma mas a wala foo ma mas a laaj rek bëgg naa ko waaye sa laaju tey gi daal mooy mbégte gi xam ne moo ëpp ci man ci loo mas a janoo ak man ak loo ma mas a ndax fi nga ko defe la muy penc sëñ Abo Mbacke soin bu fii daal sëñ bi li ma daal defe naa ni man rek maa ko yëg sama yaram waaw jërëjëf jërëjëf bërëb bi bërëbu Cheikh Khadim la ni nga sëñ su Moussa leerale léegi kon euh, mbokk téléspectateurs yi ñu doon wuutu euh, Cheikh Sidi Mokhtar xam naa ne sax moom mooy tëj alaaj Njaga Seck borom yowmal juma kon moom mooy tëj kàddu yi waaye santaat bu baax itam Serigne taala sàmb mi nga xam ni moom moo am taxawaay bu ràññeeku fii ci groupe Futurs Médias ci wàllu di leen wan li fi xew ak euh, di ko toppatoo bu baax kon ñu ngi sant ñëpp di leen gërëm di santaat bu baax euh, Cheikh Abo euh, Madiane Choye bu tey jii di sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke ni ko sëñ Amadou Diagne waxee léegi ak njaboot gi yëpp santaat bu baax di ñaanalaat bu baax itam Cheikh Momadou Mountakha mi woote woon liggéeyu bërki démb bi te àddina bi yëpp ànd ko ak moom di ziyaarewaat itam bu baax sunu sëriñ sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke moom Cheikh Abdou Khadir moom it fii la jàngi ni ko sëñ Amadou leerale léegi moog njabootu Cheikh Abdou Khadir ba ci Cheikh Momadou Bachir ñoom ñëpp fii la nu alxuraan moom it di ko ndokkeel ci xew-xew bi nga xam ne ci lañ jóge démb di màggalu Cheikh Abdoul Khadir ñetti fanu euh, tamxarit tey jii di ñeenti fan muy ajuma ji jiitu ci atum junde ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñett ñu ngi ñaan sunu borom defal nu ci tawféex ba ñu fekke waa day at yu bare bare wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf mbokk yi jërëjëf itam ñi ñu àndaloon jërëjëf itam alaaji ji ñang mi nga xam ni moo taxawee liggéey bi tey jii euh, ci Touba. Euh, euh, àndu ceeg ki nga xam ni mooy Amadou Diagne Fazeka ak njabootu sëriñ euh, Cheikh say yëpp rawatina nag ki nga xam ne mooy sëñ Ahmadou Mbacke moomu di sëriñ Cheikh ak njabootu sëriñ son yu yëpp nag yal na yàlla dolli leen ndam soxna Maymunatu Mbacke mu sëriñ Cheikh say mi sëriñ Cheikh Mbacke yor moom sëriñ Mountakha ñu ngi koy ñaanal ak maam xarit Mbacke sëñ Mountakha ak mboolem njaboot gi rek yàlla dogal na fii la ñu ñëwoon ànd koog sëñ Jili ci jumaa ji ci péncum Serigne Cheikh Say di leen jox rendez rek ba àjjuma ak ñu àndaat kook geneen juma ak seen xarit alxaaji Njaga Sekk ak Ibou Cissé bu bàyyi xam naa Xaadim Cissé la ñu àndalan bu Tuubaa jërë ngeen jëf ak Taala Samb